ñu ngi lay fay bu bu bu weer bi leen ziar yéen ñëpp nekk ci plateau bi. très bien léegi da ngay bàyyi da ngay bàyyi sa sa sa télé da nga koy wàññi comme ça nga bañ ko dégg parce que sinon rek sa retour bi dafay am décalage euh, Chérif comme euh, ni mu ko waxee invité bi mooy Abdoulaye Pouy euh, nekk maire bu commune bu mbaaw xam nga ne nawet bi dugg na inondation yi tàmbali na Chérif ma bàyyi la nga introduire sunu. waaw monsieur le maire dafa biddanti <laughs> waroon naa teew ci plateau bi dafa biddanti ñu ngi lay nuyu Abdoulaye Pouy. di fàttali kon yow yaa taw yu njëkk yi. waaw Chérif euh, ñu ngi lay ziar di la nuyu yow aussi donc taw bi comme ni ñu ko dundee comme tous les Sénégalais franchement ah, ndox xéewal la mais à la fin aussi si ñenn ñi métti woon na ci ñoom à cause des inondations vraiment dans la banlieue et dans quelques villes euh, donc yu nekk ci biir euh, Sénégal. yan quartier mbaaw ñoo gën a touché. Mm-hmm. quartier yi euh, gën a touché je crois que euh, am na à Kër Maysal euh, am na aussi le Marigot de Mbao am na aussi à Petit Mbao vers les cités Petit Mbao extension au-delà de Mbao am na aussi les cités de Grand Mbao vers Sidak parc Davis Baobab tout ça vraiment y a des yoo xamante ni ils ont souffert. alors lan ngeen nar a def pour euh, quartier yooyu wala bokk askan boobu parce que ku nekk xam na ne euh, monsieur le maire bu inondation amee day bouleverser un peu euh, population yi parce que dañuy nekk ci njàqare yéen personnellement au niveau au niveau de votre municipalité lan ngeen fas yéene def ngir jàppale boobule askan. waaw d'abord ñu ngi masawu toute la population. ñu ngi masawu la population di leen wax ne boobu vraiment euh, situation bi ñu nekk euh, ñu ngi koy bokk ak ñoom alors li ñu nar def dafa am la nga xamante ni dama koy leeral d'abord et c'est le problème de tous les maires euh, mooy lii régler problème mu inondation de façon définitive état rek moo ko mën te état moo ko war a def su ma taxawee fii ma ne tous les problèmes d'inondation de Mbao dinaa ko réglé tay tay tay tay maa ngi ndax ñi ñi maa ngi leen di wax lu la neex peut-être bëgg seen ay carte fépp inondation rek la dans ce Sénégal moo xam euh, Gonaas la moo xam euh, Guédiawaye la moo xam Cité Bellevue la moo xam euh, Dalifort la feneen foofu mënti doon Kër Massar bi ñu song fépp bu rek la woo yépp dañuy wax ne li kat état moo ko def. Mm-hmm. parce que mooy yi inondation euh, mm-hmm. inondation assainissement laaj dafa bari. ah monsieur le maire. si ñu ne agir euh, e, euh, orange defar ko su ko defee. am nga technicité xaalis mais maire li nga xamante ne moom la war a def mooy su fekkente ne loolu am na mu jëm soulager la population. Euh, monsieur monsieur le maire euh, yéen alo bismillah waaw monsieur le maire yéen euh, xam nga yaa ngi wax ni loolu compétence su état la mais ñu bari ci yéen quand même dañuy gis ni suñuy lim seeni bilan dañuy faral di ci boole ay réalisation yu bari yoo xam ne état bi moom moo ko def. xam nga xam nga boo duggee ci ci ci ci ci euh, le code général des collectivités territoriales l'article treize de seize dañ ne la maire ci ay ñi mu war a àndal liggéey collaboration li ñu ci jëkk a wax mooy état donc maire war na mën a collaborer ak état pour liggéey man mi wax ak yow collaborer naa ak état si laaj koy assainissement yu bari ak ay tali am na yu bari yoo xamante ni réalisé nañu ko. you know ay ay point d' yoo xamante ni ak Kër Mbaye Fall vraiment am na ay sept points d' assainissement yu ñu fi def à la cité promocab la même chose tal yoo xamante ne day àndandoo assainissement defal nañu ko avec euh, Promoville mm-hmm. donc loolu maire mooy euh, mën na jëkk wax état mm-hmm. état jàppale ko loolu ne waaw mais ay askan wi ñoom balaa ñuy gis état maire la njëkk wallu ba pare ah? ma ne askan wi laata ñuy gis état bi ci mairie ba la ñuy njëkk a wallu ba pare pour ñu dimbali leen. waaw xam nga loolu moom dëgg la parce que aussi ku yuuxu ku nekk fa nga fa nga yaakaar ak ngay jublu sa sa sa gémmiñ mm-hmm. donc maire su loolu amee day jëkk exemple démb bi mu amee jëkk nañu yëkki nañu ku mel ni euh, euh, APEX. le directeur dafa déplacé ñëw à Mbao amoon situation ba fa ne mu réglé ko si saa si gouverneur la même chose mu nekk ci le ministre Omar Gueye mu nekk ci bon vraiment et c'est le lieu aussi ñu sant le gouverneur de la région de Dakar man j'ai pas j'ai pas l'habitude de caresser les gens dans le sens du poil mm-hmm. mais le gouverneur de Dakar kooku ko wooyee mu am problème ci inondation yi dina jëkk wool service compétent ne la ne point am na téléphone moo xam ñoo ñooñu def ko moo xam ñu bañ ko def donc ça on le dit euh, mooy euh, l'administration mais lu ñuy lu ñuy wax état mu ci mais xam nga jamono ji Chérif dafa xaw a doy waar avec les périodes campagne élection yi ñëw on voit di n'importe du n'importe quoi parce que la population ñii xam décentralisation bariwul ñii la mën a wax compétence maire bariwul ñii la mën a wax budget maire li la ñii la mën a wax budget d' investissement ak fonctionnement mooy lan bariwul mais ay nit ñoo xamante ne dañu bëgg a nekk maire ñooy jël uniquement dans le seul souci euh, euh, euh, jël maire jaxase ko ak population problème am te je me rappelle en 2009 2008 amoon na au Sénégal mm-hmm. ba inondation yi tax population jëg di taal ay ay maires yi mais le président Abdoulaye Wade dafa gën na eh maire yi yoruñu inondation ñun état ñoo yor inondation bàyyi leen dañu ko defar. Mhm. vraiment il a calmé le jeu parce que il savait que effectivement c' était pas les maires qui pouvaient régler ces ces problèmes xool mbuur ni mu demee na nga leen di masow di masow waa Saly ak waa Malicounda mais c' est c' est grave. Mhm. lan lan mooy paaru mbaaw ci plan décennal bi nga xamante ni samp nañ ko milliards yi bari woon na. 700 milliards waaw le plan décennal euh, ñun dañu koy wax man ñëw naa seen télé boobu def euh, édition. Mm-hmm. wax ko foofu ba ñaari ministre ne euh, defar nañu Marigot Mbao ba pare dañu koy sotti ndox bi c'est-à-dire ne attention. Mm-hmm. Marigot Mbao n'est pas encore prêt pour recevoir ndox yi jege Kër Massar. Mm-hmm. nañu ko defar ba pare. ñu soog ko sotti ndox bi ndax démb bi mu tawee marigot mbaaw fees na fees boo xamante ni. yàq na fa ay gaal parce que bi mu ñëwee ak doole ndox ba fu ñëw démb mosu fa ñëw. bi mu daggee ñëw ci dex bi eh, eh, pêcheurs yi ñenn ñi dañu daw tuji ay pelle mécanique fay xaalis bu bari pour mu yëkki leen seen ay gaal déplacé ko ñiy yéex a déplacé seen ay pirogue yëpp dañu yàqu donc tey c' est des c' est des yu nga xamante ne ndox bi te seen télé boobu boo demee seen archive mën naa leen di jox date bi ñëw naa foofu ne lii kat suñu ko defee. dinañ mhm. ni loraange. alors newoon na ne dañu ko defar mais lenteur dans l'exécution ça pose problème le ministre Omar Gueye amul lu mu deful ma fekk mu ne lee gars dama bëgg dama bëgg le temps juin le 30 juin travaux yëpp pare malheureusement c'est pas encore fait. Mhm. ñun prévoir woon nañu ci projet bi deux mooy projet bi ngay wax. on nous a prévu mais li ñu njëkk a wax si Maribo Mbaaw mooy il faut que ñu def études yi mënuñu tëb tëb tëb tëb def lañ foo def def ñu études mhm. mais études bu ñu ko defaree war a def réalisation ça peut faire en deux mille vingt et un ñu ne la ne ok on peut pas travailler aveuglement il faut ngeen def il mais il faut ngeen draguer mhm. le marigot reproprier ko def un ouvrage vanné qui permet d'ouvrir quand on veut. bàyyi ndox bi mu war a génn wala mu war a dugg sa du yàq li ñuy dara. Mhm. ñu ne ñu ok mais malheureusement malheureusement Chérif c'est pas fait. Mhm. dëgg rek moo neex yàlla c'est pas fait donc là aussi ça cause. donc on va vivre la même situation que l'année dernière li nga wax ni bu dee si c'est pas fait. am ñoo xamante ni ils sont à côté li leen intéressé mooy comme élection gi ñëw il faut qu'on mette ñu maire la lii lépp municipalité si période boo xam ne au Sénégal au Sénégal nañu ànd ñu xeex ak mbas mi ànd xeex ak fondation yi loolu nag li ko mën a indi mooy képp la mu ku nekk la mu man ci dooleem. Mm-hmm. naka boole ak autorité yi moo xam ministre la moo xam président la moo xam maire la moo xam préfet la mu indi dooleem boole ko ak ñooñu pour ñu liggéey mbas mi jege fi eh, eh, inondation yi jege fi. Mm-hmm. maa ngi doon wax sànq xam naa déggoo ko mooy situation daaw bi kon li nga wax nii comme problème marigot bi réglé wuñ ko on va revivre la même situation. waaw mais eh, vous dites c'est on va revivre la même situation est-ce que bu continuer nii du ñu dund lu gën a métti que daaw. parce que daaw nous la le marigot de Mbao. c'était les eaux yi doon jege ay Tëngéej ay Bargny ay Zac Mbao ay Kër Mbaye Fall yooyu ñoo doon ñëw Mbao. Mhm. mais capa euh, euh, comment ça volume bi ñuy nar a indi mu jege Kër Massar. Mhm. bu ñu delloo ko te parce qu'on va vivre la même situation. Mhm. mais on peut vivre plus que ça a commencé dès hier. très bien. donc mhm. il faut que. dernière question Cheikh Tidiane il faut que. Mhm. les autorités ñu ngi may dégg. ñu ma taxaw. ñu defar marigot mbaaw mënuñu ko defar nañ ko war a defar ci temps bi mais lu ñu mën a rattraper ñu rattraper ko pour que. Mhm. ndox bi suñ ñëwee mu bañ a def ay dégâts. ñun ci branche bi nga xamante mën nañ ci dara on a mis là-bas un ouvrage. ba nga xamante ne day tax ndox bi génn ñun ñoo ko def avec euh, ñun suñu solution bopp la mairie parce que mënuñu sant population bi noonu naan war waruñu ko def non dañuy lu ñu man fii suñu doole yem def nañ ko te boo demee dans le petit bras saa bu ndox bi yeggee si war a mën a génn te génnagul war a déborder si si kër suñu dindee suuf bi désensablé ko ndox bi yëpp day daw génn. Mm. voilà voilà monsieur monsieur monsieur le maire laataa ñu lay bàyyi ndaxte temps baa ngi dem euh, actualité bi gis nañ li xew démb Kaolack ak euh, camion bi fa def jéeju mel noonu foofu nga nekk euh, bari nañu fa lool est-ce que jotul tamit ñu gën a xool seen réglementation ak ni ñuy circuler ci dëkk bi. Mm-hmm. waaw loolu loolu benn effectivement. war nañ ko gën a xool mais surtout ñu jox je reviens encore ñu jox si ci circulation bi yenn compétence yi au il faut maire ñu mën a intervenir sur la circulation. Mm-hmm. mais boo demee ci biir les les les routes euh, communales. mais gis nga gis ñun boo ci route communale mbaaw. Mm-hmm. Euh, euh, suñu point yi ni mu mel ni soo ko ñëwoon da ngay bàyyi Kaolack wax suñu point yi. Mm-hmm. mais ak Kaolack aussi ce qui s'est passé dafa doon loo xam ne ñun ñëpp ñu ngi koy naqarlu mais bu ñu jàpp ne. étranger moo ko def rek on va en parler def ci yenn yi mais tey sénégalais yi il faut plus que ça. lu nekk mu ngi am. ci biir passerelle sa commune passerelle yëpp euh, yàq à yi. Mm-hmm. Mm-hmm. mais def nañ ko ba pare mais nuñ ko appliqué. nuñ ko appliqué c'est ça. Mm-hmm. c'est ça jërëjëf euh, monsieur le maire. li ko mooy euh, mbaaw Kër Mbaye Fall. passerelle yëpp kër kër yi gaa yàq. nañ ko gros porteurs yi. muy camion oto yu mag yi ñu lay jaajëfal bu baax monsieur le maire. Abdoulaye Pouy maire de la commune bu Mbaaw bu ñu ci jógee ñu jàll léegi ci.